ay cukkuli ay moom suma sër suma rax donc vraiment moom bis nekk bis bu rëy ci moom ak famem ak ñëpp ak ñu ko bëgg vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla li nga xam ne dugg na ci yàlla defal ko ci jàmm ak salaam mu sëy si baam ci njaboot gu barkeel ñu ngi koy ñaanal ah waaw sëy moom benn neexul bu xoolee yaayam lu mu sëy war na ma fa war na fa mën a seey te ñoo ngi ko koy ñaanal ak borom këram man daal li koy ñaax maa ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may waaw xaas kon ni ko gars yi di waxee rek kon ni ko gars yi di yem na ko yërëm sabar gi dans dans deux jours dans deux jours nga ñëw gaale ñu waxtaan léegi